daf ko teg ci joggare lugal arabiya ak naxwu ak maarifatu billah waaw ñu ne nag yàlla moo mu waxee noonu ne ndax am na la dara lu ngeen di werante ci man si sama sañ sama coobare sama man-man ak samay ndogal ak samay mbetteel تبارك الله يعني تورم كل اللغه العربيه مودي الله الله هو التعبير العربي المطلوب العلم للذات كي عرب دي الله لطب واخنا فسخ كي بوكو انني انا الله لا اله الا انا اننا انا اننا inniyatu indi na allah indi na huwa moom ni mu xame boppam fa la yem liñ ko mën a jege-jegeloo pour xam ko moo di asmaul xusna tudd tuur yàlla yi waaye jëmm-jëmm mbir ya moom ku dul yonent bi xamul góor gi Cheikh Alhaji Abdoul Aziz daan na seede loo daan na seede woo xasa خاصة حكى السيوطي في كبرى الخصائص عن طه عن الرسل عن ذي العرش سبحانه لا يعرف الله إلا الله جل كما لا يعرف المصطفى إلا عرفانا ولا لك فقط بموح موسى يا موسى إنني أنا الله إنني أنا الله من man a ana man mii man a waaye man man la kenn di xam mu ne allahu waaye mu cëppee loolu inna niya ana allahu moo tax lii na trop yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de am na ku ñëw mu ne képp koo xam ne wax nga laa ilaha illallah da sa xol gëm ko nga dimbali koo ca yàlla nag aljana nga ñëw nga dem mu ne ko ak lu mu mën a def mu ne ko ak lu mu mën a def mu ne ko ak lu mu mën def ko ak ne ko ah ah, ah daa li nga may topp bëgg ma wax safaan lànk ndax man li ma xam ne lañ ma wax da nga bëgg kuñ ko koo ba ma ne su defee lii def lii def lii dem safara du ma ko wax fii nag moom. du gaaw gaaw nañu dugal ni safara lool tabarakallahu léegi ñu jox shérif nee nañu turam gi nga xam ne moom la moo dafa sedd dafa sell mu di allahu al mu di allahu annafiu altaabu albarru almun'im alxaaliqu almuhaymin الجبار المتكبر العزيز لوي سيرتو سيرتو لو انزلنا من كوتوبالي توبالي دوكو ري سوكو جانغي فوق سخول لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله يوم سما سبب محمد القران دي صلى الله عليه وسلم مكو واتي وون كي مونتاني غنا ري دا نا بنغو دا نا ييمبو دا ناي دم سخ بوغ خا ndax asmaullahi alxusna turu yàlla yooyu moo tudd léegi la ilaha illa huwa almaliku alqudus salaamu almumin almuhaymin alaziz aljabbaar almutakabbir jaadu na ci mu topp ci almutakabbir léeg-léeg mu dem rek dootu ko woon waaw te demaat tur yooyu ci lay manifesté woo tur ya nag loolu lépp phénomène la wala signe la ci ci li ñuy tuddee li ñuy tuddee ak taab li ñuy tuddee li ñuy tuddee ak taab ak li ñuy tuddee

waaye pour fay nag feeñ bi nag dañuy ñuy waxtaane ci wàll bi moo tax ñu ne ak taaqa moo jiitu màdd moom la alquran andi wax moom la alquran andi wax wal jinna wal janna xalaqnaahu min qablu min naari samum xalaqtani min naarin وخلقته من طين وتاج جبريل آه، آه، ابليس تا بامي واحد يلا نكو دال جومنا موس دي سوجو تال كي نانا كو سوجو تال دا خيتم تي دك دك كو لول فلا الكاريا موتاخ ني ني ابليس نيكولون سي كوريلو ملائكه نيك نانا بيندف مو خامني يالا مايل نكو بويسانس yoo xam ne man na ci dëgg def lu bari xam nga yàlla wane na sax ni tolérance war a amee <clears throat> ci àdduna ci képp ku yàlla dénk nguur wala mu dénk la sañ-sañ wala mu dénk la benn famille wala mu nattoo la ngay sëñ Cheikh El Hadj maa ngi leen di xamal Cheikh maa ngi leen di xamal ni sëriñ test la lu dëgg kifaaya sëriñ test la kuñ ko wax dawal ñëpp ñu ñëpp dem ndax da ciy dem ba su la yàlla baaxewul nga nga doy sa bopp lool ci ña am xel ñi gëlëm nag ñoom du ñu xam te doyal si waaye doyal bi doo sëgg na dooy bi weesu nga dóor sa dënn wala mbooloo dar la rek nga waxe lu la neex waxe bakkan natt weesuwul ay nit wër la naan la yawa yawa yawa yawa ba nga naan man man rekk daf lay bett ba tax na yàlla àll wala joo xam ne du mokk mukk Cheikhuna Tidiane radiyallahu taala anhu nee na bul ne man jullit laa man rekk gëm keneen gëmul ñeneen du ñu dara walla ñee ay yéefar lañ wala nañu topp wala nangam nangam wut foo leen dëkk bul wax loolu fekk dugalaguñ la ci bàmmeel te bàmmeel ku fa xas dugg dootuñu la wax داخل لينين ولا ترى في الأرض دونك مؤمنا ولا كافرا حتى تغير في الأرض آه، الله الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلغ كمال قل الله الله قل وذر الوجود وما حوى واو نقول دك لا وخ دك لا وخ الله يلا يلا نانا نك لودول يلا نك ندار كو تي دا باي لين تم نيتو يلا يد بوك تي حال ني باي نيب موي نيب كوبيت تي امنا ني وير ديبو waye amna ño xamne dañu nek ci biir mbolo te nek ak yalla dañu ma sa dem ci ben dayu président abdullahi wat di genn mu gañu ci grand dakar maa ngi toog ak benn doomu sama bàyyi sëriñ Abdul Qadir Mbacké tant bi ci biir ci Grand Dakar la coow laa ngi bare bare bare waaye ñun ñu ngi sëgg di ba yàgg ma ne ko ah bi lii damay xalwatul fi jalwa ma ne ko ah dafa mel ne de nit ñëpp a ngi waxtaan baakaar nekkul te waaye ñun de ngi ci xalwa mhm. coow lii daal daanaka dérangé wuñu mhm. yàqul dogul suñu wax dogul suñu kàddu ñun fa ñuy fa ñu fa ñu jëmale suñu kàddu yàlla dimbaluñ ci ñu ñu ngi ciy bu baax mag yow fi ñu ñu jéem ba bu ñu doon maa xaw soo nekkee nag di bëgg mat nekk nga mu taadal nekk bu loo xamaa dem ba jot ak mat mat goo xam ne cew dootu ca dootu ko dab coxar dootu ko dab réy dootu ko dab wote dootu ko dab tuumaal góor yi dootu ko dab ak gaaw tuumaalante bi Cheikh El Hadj Malik nee na li yakfika radiyallahu anhu li yakfika ma taalamuhu fi nafsika amma tadunnuhu fi gayrik Cheikh El Hadj Malik nee na li yakfika na la doy sëkk yow jàmm bi man Malik da la koy wax doy doy la ma na ma lan doy góor bi mu ne maa taalamuhu fi nafsika li nga xam ci sa bopp ci ay damm damm ak ay tilim tilim wala doy sëkk ci liggéeyam ko yëwanal bu jugoog sa bopp am maa tazunnuhu fi xayri walis la nga xam ne nag ci keneen nga dëkk rek di ko di ko ko jot te xamuloo ci dara waaye nag li nga def yow xam nga ko li keneen def nag xamuloo ci dara bis bu nekk nga dëkkal nit nit bu mu dëkkul bis bu nekk nga wax ci nit loo xam ne amul moo tax kuy def lu la sa njort indil nga fat daa fat du yàq sa nelaw bés daa fat lu yàq sa sa sa sa lu mag bépp jëf boo am ci bu baax yoonu yàlla bu fa من لا وجود لذاته بذاته لم يشهده شيئا ولا متكبر متعال ولا سوى ملاقية جهادك في الحال والماضي والاستقبال لا إله إلا الله لا إله ñu ne nag dimension yi nga xam ne ci la ñu mën a natte yàlla moomu man ca jëflanteeg moom lu ñu jural dalu xel lu ñu jural dalu xel xamuloo wallaay ñëpp a bëgg lu baax. Mm-hmm. ñëpp a bëgg lu baax seytaane am doole rek. Mm-hmm. waaye li ngay xool nit ba bañ ko bu tax ak li wolof naan man ku ma cof morom yooyu yëpp waxin la yoo xam ne dana dana xañ lu bari te day dem ba bëgg a dëggal loolu ci teg ko ci njom te du njom. ku ma cof ma rot maa lan ku ma cof ma nekk sama yàlla teg ma ma mhm. xam mhm. yaay mujj a rot lëngoo neex na mhm. waaye koo bàyyi mu dem ak mbaggam man duma dem ak sama mbagg dama naan la dañ ngeen ci suuf waxtaan sëriñ Babacar Abdoul Aziz suñu rakk ju baax ci dafay waxtaane lu xaw doy waar benn waay boo xam ne dafa mës a ونقول له نكري كنا قريب على تك حاجة طلعت وتيصل أمنا نقول خمنا هو كي تفتم هو كده بتيك أنا من جبوب ده أمنا جبوب يوم خمنا أمنا لو نقول حاجة دون تنسين كذي فحاجة لنا واخا واخ لوكو نيه رك ني ولين ديم يوم تود بنتي سين باوكر نينا بس افهم نكو سين باوكر waxal Pape Tall muy oto bi mu dem jumaa ji julli dem julli ji ndekk bi muy dem am lu mu yóbbaale ci ay teraanga yu am solo ci ku ko bëgg te ku ne bañ naan teraanga nag waxul bëgg ñëpp ko bëgg teraanga waaye ngeen déglu rek ci góor gi jëm ñu julli jumaa ba toor mu ne mu ne Pape Tall dama bëgg dem kër diw ci Tiwaawan la de dem dem dem jaaral ci jaaral ci jaaral ci ba dem ñu ne góor gi allah ji ab doole seet mu toog final bi dana ñëw ñëw góor gi ñëw nuyu ko daal di woo Serigne Babacar Abdoul Aziz ni ko yooyu nekk ci oto bi demal nga yenu ko lépp indi ko saa ko ceeb de suñ ko dee bu mu mën doon yenu bu mu kenn yow yow mu dem indi ko ba mu ko bindee teg mu boole la mu cay boole nag foofu dama la doon siyaare si rek ñaanal waaye da toog daal ko ñaanal ba mu demee xam naa ne xelam yëpp xam nga ni mu yëpp ko waaye Serigne Babacar wan papaam ne ko daal lii daal diis na ci man lu ko sëriñ Ba du foofu ne di ko toll mer payu lu baax wala fayonte safaan ëpp naa def ku la defal ku la jëf jëflanteeg yow safaan jëflanteeg moom jëflan na nga jëflanteeg moom njëkk ak yiw ak caram